jërëjëf ñu ngi leen di nuyu bu baax euh, ci li nga xam ne moom laa euh, bëgg waxtaan ak yéen ci lu gàtt mooy li xewoon démb assemblée nationale jaaxal Sénégal yëpp ndax dañu defe woon ne président Macky Sall bu bàyyee affaire u troisième mandat vraiment stress bi dina wàññeeku waaye dafa mel ni président moom ci stress la ñu bëgg a yóbbu ba février 2024 parce que président boo xam ne yow da ngay dem février luy sa yoon ci vraiment ay tripatouillage de la constitution moom dañuy xaar lépp ci moom ba mu des ci changer constitution ci kuy dem février kon ñu ngi féliciter vraiment député yi nga xam ne démb am nañ taxawaay bañ war a am muy député benn Bokk Yaakaar ak député euh, opposition ndax li wolof di wax mag du fecc yàlla naa dee ndax andi projet boo xam ne la ca ne woon mooy président saa yu ko neexee mu nangu seeni post député te nga xam ne ñu ne buñ ko xasee ba jël Euh, voilà amoo benn garantie ne da ñëwaat la ca ëpp chance sax mooy dootoo nekk député kon ñoom amoon nañ fullaak fayda bu toll nii ñu indil leen loo xam ne lii méngoowul ak seen intérêt waaye méngoolu aussi ak intérêt réew mi ndax dafa doon li ñu naan une réforme bu ko defoon bu jàlloon déconsolidante de la démocratie ma fàttali ne président Macky Sall ci boppam moo indi woon loi boo xam ne bii day tere kenn mën a tas assemblée nationale ci giiru ñaari at loolu mooy indi aussi stabilité ci réew waaye bu fekkee ne réew moo xam ne saa yu président bi yeewoo rek xool kanamu député yi neexu ko mu ne tas naa assemblée ba moo kon kon kañ la ñuy liggéey kañ la ñuy liggéey te loolu xaaruñu ko ci président de la république président li ñuy xaar ci moom tey sunu naataango yi dinañ ci waxtaan mooy mu bàyyi ñëpp doon candidat mu fexe ba réew mi dal mu libérer aussi sunu détenus yi loolu dina am ñu ci wax dinañ ci wax euh, plus en mais ci point bii nga xam ne moom laa waroon a waxtaanee. vraiment dañuy aussi gën a kañ suñu député yi suñu député yi dans leur ensemble parce que assemblée nationale assemblée réew mi la ku fa toog ngay opposition wala ngay non inscrit wala ngay euh, euh, benn Bokk Yaakaar askan ba fu fa yóbbu kon toujours bàyyi leen xel ne vraiment intérêt askan wi ci ngeen war a dox rawatina nag président boo xam ne dans six mois mu pare monsieur le président de la république yow affaire troisième mandat jeex na waaye bàyyil mandat jàmbur c'est pas parce que yow it amoo troisième mandat nga bëgg a nangu mandat wu jàmbur yi mandat wu député yi ñoom ñoo ko moom voilà foqati nga sama bos waaye kooku beneen débat waaye ñiina nag wax dëgg yàlla euh, bàyyi leen seen cinq ans euh, wala en tout cas bu pré beneen président ñëwee fileeg mois de juillet kenn mënut a nangu seen i mandat kon jaraw lak député benno yi ak député opposition yi nga xam ne nanguwu leen loo xam ne kenn waru koo nangu asgor nag doo nangu loo warut a nangu kon ñu ngi leen di di leen kañ di wax président Macky Sall mu génne vraiment loxoom ci constitution bu muy bëgg a voilà caxat caxatee te dans six mois ci lay dem li ñuy xaar ci moom mooy li ñu wax mooy vraiment mu dalal réew mi génne stress bi nga xam ne permanent bi mu bëgg dugal réew mi loolu kenn mënu ko nangu. kon ñu ngi félicité député yi ci wàllu woowu te la mu war a def moom xam na ko mooy mu def ko problème yaa ngi fii bari bay bëgg a dee voilà na six mois yi nga xam ne moo ko dese ci bopp réew mi mu liggéey lam ca war a liggéey. na nu ko waxee su ma naataangoo yi dinañ ñëw ci yeneen point yi parce que amoon nañ ñetti point ci suñu plateforme bu ko defee vraiment en février mu teg dossier yi dem noppalu waaye affaire constitution article 87 ak xaw ma beneen ban article kooku yoonam newatu ci na bàyyi février kii ñëw ba juillet kenn mënta laal assemblée nationale bi euh, bu ko defee ñu xool aussi fan la ñu war a jëmee euh, suñu démocratie waaye lii mu bëggoon a def euh, vraiment heureusement député yi am nañu fullaak fayda boo xam ne bii nanguwuñu ko ba moom mi ko indi woon da koo mujj retiré loolu li mu koy wan nag mooy euh, daanaka àppam jeex na ndax kuy bëgg a dem nag ak ki nga xam ne day toog lu yàgg bokk nu bokk nu bokk bokk nu pouvoir loolu aussi bu jàngat ci wàcce lépp bàyyi politique politicienne bi euh, def li nga xam ne war na koo def février incha allah mu organiser élection yu jaar yoon bàyyi ñépp ñu participer libéré xale yi dinañ ci dellu si euh, bu ko defee Sénégal continuer yoonam ci wàllu démocratie ñu ngi leen di gërëm. euh, vraiment féliciter nos députés euh, pour leur attitude d'hier. Ils ont refusé euh, vraiment euh, ce projet de loi qui était une loi parce que le président de la République va quitter la tête du pays en février 2024. Mais il semble vouloir nous installer dans une spirale sans fin de stress. Les gens estimaient que euh, la situation après avoir euh, déclaré qu'il ne serait voilà, mes camarades ici reviendront sur les autres points, sur les détenus qui sont toujours en prison, sur euh, voilà, la sélectivité qu'il veut amener dans la participation, qui devrait être une participation inclusive, etc. Les autres points seront développés. Mais pour ce qui concerne moi, mon adresse, euh, je voudrais vraiment inviter nos députés, qu'ils soient de Berno Bokoyakar ou de l'opposition, à avoir cette stature que tout le peuple sénégalais a appréciée hier, c'est-à-dire avoir refusé une loi déconsolidante pour notre démocratie. Un président qui part dans six mois n'a pas à changer de constitution, on l'a jamais vu, on l'a jamais vu nulle part. Un président qui s'en va, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il apaise le pays, mais qu'il arrête de nous mettre dans ce stress infini. Donc je voudrais féliciter vraiment nos, nos députés et que désormais, ils aient cette attitude et que seul l'intérêt du peuple soit leur préoccupation. Surtout pour un président qui s'en va. vous n'êtes plus sous sa tutelle. En février, il ne sera plus là. Donc vous n'avez plus à avoir peur. Libérez-vous de cette peur, c'est fini. Dans six mois, il partira. Maintenant, concentrez-vous sur les intérêts du peuple, comme vous vous êtes concentré sur vos propres intérêts. comme vous avez défendu vos intérêts, c'est comme ça que vous devez défendre les intérêts du peuple. Nous vous encourageons à le faire. Le président Macky Sall, ça y est, c'est terminé, Donc concentrez-vous sur les intérêts de la nation et Monsieur le Président de la République, nous voudrions vous dire vraiment apaiser ce pays. Nous avions été dans tellement de stress avec la mort de jeunes, vous n'avez plus à vous préoccuper de constitution. Ce n'est plus votre affaire. Laissez les mandats des députés tranquilles. Bon, vous n'avez pas eu votre troisième mandat, vous n'aurez jamais dû l'avoir, vous n'aurez même jamais dû y penser. Mais ces nga war a bàyyi sax président la République bu ko defee Voilà, on reviendra à la normalité républicaine, qu'on retrouve notre sérénité, que chacun participe à la démocratie, participe aux élections, que nos jeunes soient libérés, je crois que ce sera détaillé, Sénégal poursuive sa marche vers une démocratie consolidante, alors que le projet de loi en tout cas la modification de l'article 87, œuvrait dans le sens d'une déconsolidation de la démocratie. Et ça, il est heureux que nos députés ne l'aient pas